bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala seydina muhammad nabilu mi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillaahi ni wala yàlla bokk internet yi nga xamante ni yéen baaxu topp suñu jotaayu xam-xam bi mbégte la ñu am tey dellusiwaat ci beneen jotaay feggo wàcceeg kenn ki nga xamante ne saa su ne dañuy bëgg di fegook moom ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan bëgg a waxtaanee waat moom lenn ci xam-xam rawatina ci wàllu turu yàlla yi ak ni nu bindoog ni nu tëddee ngir lépp loo xam ne talaan nañ ko fi rek ñu daal di koy fas yéene jagleel askanu senegal rawatina suñu mbokk internet yi kon su ko defee rek dañ koy daal di nuyu ziar ko waaye daal di koy dalalat macha allah ci biir jotaay bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar macha allah rabbi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ay taala ñu ngi lay fay nuyoo. di nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi. Mm-hmm. di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew. Mm-hmm. di leen wax ni bisimilah dalal nañ leen. macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci nuyoo bu am solo boobu macha allah bi ñu daal di tàmbali rek bëgg a waxtaane waat lenn rek ci turu yàlla yi ak yenn xeetu salaatu yi nga xam ne ñu ngi koy faral di dégg ci gaañu bari ñu koy waxtaane waaye mu mel ni ba léegi askan wi dañ ci amagul ay gindiku te yow kenn ku ne xam ne ni am na cër woo xam ne suñu borom moo la ko cëraleel ci wàllu xam-xam euh, xam-xamu mën naa ni tey ji askan wi dañ lay bëggee tey ji ku lu amul dina la uti ji macha allah bi mu bokku tey ci li nga xamante ne mooy salaatul naar yu ñu bëggoon cee waxtaan nga wax ñu la mooy salaatul naar yu njëriñ yi nga xam ne làmboo na làmboo a ko làmboo na ko moom tey waaw Baye Talla salaatu naari yu salaatu bu yàgg la mhm. boo xam ni du jamono ji mhm. salaatu la boo xam ni benn benn nit yàlla ñoo ko daan xam mhm. ndax wertu ko sax boo simple kese kese di ko werdu mën nga ci jële ay jafe-jafe muy salaatu boo xam ni buñ musaan a jaaxle lool lañu koy jëfandikoo waaye kenn du jóg rek yor ko di ko jëfandikoo mhm. daanañ gis nag ci mag ñi mu ñu demoon ba nawet am te ndox amul mhm. ñu dem ba am kersa ci gàncax gi ni muy yàqook jur gi mhm. ñu jóg jëm ci suñ borom wax nañ ni buñ musaan a taal ab sedd bu guddi yor secret bii di salaatu naari yu di ko sikkar di wër taal bi bala ñoo daaneel li ñuy def ndoxum taw bi mooy fay sëb boobu waaw ni secret la boo xam ne doole ji bokk na ci xëcc taw mu wàcc ci mhm. kaw suuf jóge ci kaw asamaan muy salaatu boo xam ni itam nit bu musaane lakkale këram lépp tàkk ba dara disu ca mhm. lañ ko ko daan door jox mu koy jëfandikoo mag ñi daan nañ ko wax ni ko doo ko liggéeyu lu mat ñeent fukki guddi ak benn mhm. te lépp lu lakkoon ci biir kër gi ñëwatul fekk la fii. est kon salaatu bu gaaw la boo xamante ni si nii salaatu bu matale la. Mm-hmm. waaye bu yàgg la waaye dafa bokk ci salaatu yu wér yi. Mm-hmm. moom kenn du ko caaxaane. bari na luñ ci yor nag jàpp ni lépp la waaye manqué na. Mm-hmm. salaatu naar yi mu ngi noonu. salaatu la boo xam ni doomu aadama bu am njàqare. nu njàqare la toll nu njàqare la toll rek bu liggéeyee salaatu naar yu mën nañ ko cay dimbali am na ay lim yoo xam ne nag ay limi sekkar la ca waaye lim yooyu kenn du ko joxe mhm. waaye lim yooyu moom ku am jafe-jafe yooyu ma la wax mhm. dinañ ko jox ci kàttanu yàlla incha allah. macha allah euh, wax nga ko léegi sëñ bi mu doon lu am solo wax dëgg yàlla waaye bokk na ci tey jii limi moom da bëgg moom xaw ma kañ nga ñuy may jotaay boo xam ne ci limi limi limi secrétaire yàlla yi moom lay daal di doon ndax xam naa ne ñeent benn ak cent 1111. Euh, euh, euh, neuf cent huit cent soixante-dix-sept am na daal ay lim yoo xam ne daal fi ñu wax dëgg yàlla moom bëggoon naa nga nga nga dimbali ci askan wi fi mu toll nii su ko defee dinañ xam mhm. parce que am na ñoo xam ne tey dañuy jël benn mbir rek bëgg jàpp dem jàpp lim bi ñu jàpp ñoom bëgg ko ko wér de est-ce que tam loolu du indi jafe-jafe ci ci sàkku waaw loolu moom mhm. mbir yi du demee noonu mhm. salaatu naar bi sax laa lay xoolal ndax takana yoroon naa ko fii pour dimbali ci jaam ñi leeral leen ci lenn day salaatu boo xam ni njariñ yi kenn xamul num toll te it day boo xam ni dafa jóge ca mag ña du yëfi jamono ji dégg nga wax bi dafa jóge ca mag ña du yëfi jamono ji tax na boo ko dee waxtaanee mën nga koo indi ba nit ñi mën koo jëfandikoo. baax na waaw léegi laaj bi lan la. laaj bi mooy ndax est-ce que jii fi mu ne comme limu lim yu ñuy wér de yàlla yeeg yu ni mel est-ce que tey jii turu yàlla bu ci ne amul ay code code secret yoo xam ne maanaam lim bi nga ko war a wér de yi nga ko war a kiiwee loolu la ndax damay bañ ñenn ñi fi mu ne daal di dégg salaatu rek dem jële ji lim ba leen bañ jàpp rek daal ko koy wér de est-ce que du leen indi ay conséquences wala ay jafe-jafe. waaw li ëpp ci doomu aadama yi boo gisee seeni problème. Mm-hmm. ci loolu lay jóge mooy dañuy yor tur yàlla woo xam ni amuñ ca ndigal wala ñuy werd loo xam ni xamuñu lim bi fu mu yam ndax werd ñaar a ci nekk su matul danse la su ëppee danse la que booy werd mbir te matul mhm. yaa ngi ci danse mhm. booy werd mbir mu ëpp tamit yaa ngi ci danse mhm. kon loolu dafa jar xam ci affaire yi bu baax a baax salaatu naari bi ngay laajte mu ngi nii mm-hmm. mu ne allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaman ala seydina muhammadin allazi tanalu bihi lxuqadu mm-hmm. wa tanfariju bihi lkurabu wa tuqda bihi lqawaaiju wa tunaalu bihi raqaibu wa xusnu lqawaatimi wa yutasqa lamaamu bi wajhi lkarim mm-hmm. wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamcatin wa nafasin bi adadi kulli mahlumin laka salaatu bi mi ngi noonu mhm. salatu bi baytaala door a ji mhm. eh, gaa yi xamaguñ ko wax naan la mag ñi mhm. bu ñu musaana soxla taw ci nawet boo xam ni da lay na leer nawet bi di yàq yàqu moom lañuy jëfandikoo bu nit musaana lakkle ba këram dara disu fa moom lañ koy jox mu koy jëfandikoo te nee naa la balaa mat ñeent fukki guddi lépp lu nekkoon ci kër ga dina dellusiwaat ci kàttanu yàlla bu doon ci digg àll ba la dëkk moom dongit mhm. kon salaatu bi nga laaj tey sekkareel bi xam nga foo ko jële waaye <laughs> mi ngi noonu ma la ja ma jàngal na ko salaatu bi mhm. noonu la demee baytal macha allah mu doon lu am solo xam nga tey dama am yoo xam ne ñi ngi fenn fu ne ci àdduna rek fi mu ne ne ko ab laajam su ko defee ma daal di dajale lépp rek daal di lay indil ma nit su ko defee <laughs> waaw mënta ñàkk ñu leen di nuyu ñoom ñëpp suñu mbokk yi sénégalais de la di diaspora ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla kenn ku ci ne fa bokk na ci tey ji sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye Alxuraan lii nga xam ne mooy salaatu sóoratul ixlaas laa bëggoon itam nga indi ñu ci ay leeral ak yi mu laan mboo ndax min nañ ko daal ci dégg min nañ ko itam ci ci ci ci tur waaw sóoratul ixlaas saar la woo xam ni mhm. suñu boroom yàlla ci la présenté boppam mhm. nga xam ni dafay jël benn baat wax ci ñetti kàddu mhm. wax ci ak yonent bi wax ci ak Seydina Jibril yonent bi wax ci ak ñun mhm. muy sortu Ixlaas di qul huwallahu ahad mhm. suñ borom dani Seydina Jibril demal ci yonent bi nga wax ko mu dem ci nit ñi mhm. xamal leen ni leen seen borom mi leen sàkk kenn kese la ñaar yàlla sàkkul nit ñi ñett yàlla sàkkul nit ñi ñeent yàlla amu fi benn bi yàlla dong moo am moo tax mu yonent bi demal ci doomu aadama yi nga wax leen ni leen maa la yónni di leen xamal ni man yàlla mi la yónni ci ñoom sàkk leen ñoom ñëpp benn kenn la benn borom mhm. yàlla amul ñaar amul ñett foo dégg jeneen yàlla jugal foofu <laughs> yaa dégg mhm. ni yonent bi waxal ni doomu aadama yi seeni aajo ak seeni mbir yépp mu ngi ci sama loxo ku ci amati soxla na ñëw ci man yàlla moom même fenn subhaanahu wa taala pul waxal huwa moom allahu yàlla ahadun kenn la mm-hmm. allahu yàlla assamadu moom la nit ñi war a jublu waaw mm-hmm. boobu mm-hmm. nit ñi jublu gi ñu war a jublu yàlla mooy ñoom ak seeni aajo yépp dañ ko war a jëmale ci seen borom waaw fi nit bu amee soxla feneen fu mu jëm fu dul ci suñu borom aajo ba dafa jóg ndax yàlla da koo wax ni ko boo amee lu la metti ñëwal boo amee lu la neex ñëwal loolu menam yàlla doon ko fi wax moom soo amee lu la neex ñëwal soo amee lu nag xool ma ngaa wéy yàlla mi borom jaam ñi mm-hmm. dañ leen ko am lu neex ñëwal ko am lu naqari ñëwal mm-hmm. yàlla wax na gannaaw ba nga xamee ni moom xam na ni kenn la mhm. mooy as-samadu mhm. yàlla xamal na doomu aadama yi leen man yàlla nag juruma ci kenn doomi yàlla ak sëtub yàlla mhm. yooyu amul ci kaw suuf si kenn ku yàlla jur amu fi ñëpp yàlla di leen bind yonent bi gën ci kaw suuf si te bokkut ak suñu borom dara li nga yàlla muy doonub jaamam noonu la yonent yi bokk ak yàlla loolu la ñëpp bokk ak yàlla leen mhm. a bind moom leen ñoom ñëpp ay jaam lañ ci moom yaa ngi dégg mhm. yàlla jurul kenn te kenn jurul yàlla mhm. nekkulit ci kaw suuf loo fi mën a jël ba dendeele kook yàlla amul ndende waaw hmm? ah, amul dendandoo de amul dendandoo yàlla nag nee na ki gën a xàmmee ci yéen nga xam ne dañ na ci réer mooy ki nga xam ne dëggal na kenn googu mu koy wax mhm. te mooy ku foon axat waaw mu dellu gëm wax ji ko yonent bi di ko di wax ci mhm. yàlla xam ni yàlla kenn rek la mhm. ixlaas mooy saar yu yàlla présenté boppam baytaala ci jaam yi jël nañ ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne ñetti ixlaas képp koo xam ne jàng nga ko guddi mel na ni jàng nga boroom xam-xam yi mutasawifuna yi nee nañ kenn nit ku toog jàngal sa bopp junni ixlaas ci jataay fi nga sa bopp allahu akbar àjjana mën nga faa dugg ëllëg waaw junnib ixlaas mm-hmm. képp koo xam ne toog na jàngal ko boppam ñaan ci yàlla njëggalu ëllëg yow ma la xiyaam mën na ko faaram mm-hmm. wax nañ ni képp koo xam ne toog nga jàng douze fiddaaw nga sa bopp fiddaaw nga sa njaboot <laughs> ëllëg mën ngeen a mucc yamal xiyaam mhm. mag ñu njëkk ña booy door a juddu ixlaas lañ lay ñaanal booy génn àdduna ixlaas lañ lay ñaanal mhm. saar woowu la ñuy wax dem ak ñëw wallaahi mën na laa indi mën na laa yóbbu est-ce que dégg nga wax bi bu baax a baax jamono bi nga mënul dara doon liir Hmm. fukki ixlaas ak benn lañ lay teeroo hmm. teeralee la ko jamono bi nga mënatul dara doonum néew hmm. fukki ixlaas ak benn lañ lay gunge teeralee la ko te alxuraan jëpp fi kon laal nga saar woo xam ni soxlay jaam ñi yëpp buñ ko wékkoon ci ixlaas mën na ko faj bunt yii ngay laaj nag saar wii moo amee bunt moom ndax ilaaj boo ko dee liggéey daam yooy gis te boo wooyee fee bopp mën nga fa jaare <laughs> loolu kii maan la sëñ bi. Hmm? ak ni mu gàtt ni mu niróo niróo lu tuuti noonu fi kim fi fi ne. maanaam yi ne ci ixlaas buñ lay buñ lay fekk si. yow sëriñ bi. bu dee liggéey nga ko ba mu wuy si ko lu nit di am benn junni lañ la ciy jox. macha allah. ba dee sàkku mbooloo. boo ko dee werd ba ixlaas ubbeeku ci yow bu nit ñi dee am téeméer yow junni ngay am. ba ci dee soxla xaalis boo ci liggéey ba secret bi ubbeeku ci yow te nga xam sarax bi di ko def mhm. bu nit ñi dee soxla junni million nga yam ixlaas daraam tuutul mhm. leeru yàlla suñ boroom mhm. ñi dee xam bëccëg ak bëccëg fajar gi yàlla di boole xamal waaw hmm? day génn nit ci dimension bii mu nekk dugal ko ci beneen dimension Mhm. waaw saar woowu moom la salaatkat bi duñ ko fowee ndax dafa nekk loo xam ni jadd jadd lu mhm. waaw moo tax sax dama koy moytuloo werdkat yi nga xam ni ak agguñu yenn doole ji amaguñu genn dimension gi xamaguñ sekkaray sarax mhm. bëgg rek xëy sóobu ci saar woowu ndax saar woowu doole ji dafa bari baytaal masha allah waaw du ko jóg rek laal ko daal <laughs> du yëfi gone daal gàtt na waaye doole ji dafa bari <laughs> tarkal sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu macha allah rabbi wax dëgg yàlla saar bi niru na lu gàtt waaye gannaaw saar la boo xam ne suñu borom moom ci la présenté boppam defe naa ni kon màggaayu suñu borom daanaka fe feeñ na ci biir saar bi ndax ni nga ko waxee itam daanaka indi na indi na firnde ci ci ci ci loolu mu mel ni tamit tudd nga ko léegi dama doon bëgg a laaj lan moo mën a may doomu aadama bi bu sa bu soxlaa mbooloo lan moo ko mën a mbooloo waaye mën tudd ko tam ci biir lixlaas gi ne lixlaas man na may doomu aadama lixlaas dina maye mbooloo mhm. comme ni ma la ko waxee mhm. waaye mbooloo nag am na yoonu boppam et social boo xam ne moom boo fa jaaree am ko ok ndax suñu maam Ibrahima alayhi salaatu gannaaw ba ko yàlla yónnee ni ko wóol jullit ñi ñëw màkka fekk la fi di acc dani ko mhm. boo leen woowee duñ ñëw ndax yonent yàlla noox woo na leen daanaka junne at wuy suñ ko suñ borom ni ko dina ñëw ak duñ ñëw nag loolu sa yoon ñëw yow dama laa woote la woote boo leen woowee dinaa la jox loo xam ni mhm. nit ñi dina ñëw fekk la màkka duñ yem sax ci jaar ci porte biñ miine waa màkka waaye diggante xibla yi ci ñeenti xibla yi màkka yi fépp la mbooloo mi di génnee ànd ak seen alal ànd ak seeni daamar seen doom yi seen lépp la ñu yanu indi la ko màkk fii yow wooteel sama ndigal rek mbooloo daa am yoon woo xam ni boo amee ndigalul yàlla sàkk ko ci mhm. nit ñi dinañ la wuy si ba nga tiit mhm. mbooloo dafa am ñaari secret bay taaral mhm. dafa am buy indi mbooloo am buy dindi mbooloo li nga wax bi dafa am ay buy indi mbooloo ak buy dindi mbooloo am buy dindi mbooloo daa am fii ñaari sëriñu jote woon ci réew mi mhm. kenn ka di defu gàmm kenn ka yor secret boo xamante ni si nii moom bu ko defee gàmm nga kenn du fa nekk ndaw lu rëy. moom la ñu indil problème maa ngi mujjee. <laughs> kii di woote bëgg mbooloo bi fees ci bâche bi fi ne kii toog fa mu toog rek di yéen de. <laughs> waaye sëñ bi loolu day na waar di. daa daa yor loo xam ne bu ko defee moom kenn du dem foofa. te te te te te hmm? moom suuf sooy bu ko defee ba ba yób ba jox la suuf ni la yóbbu ko ci fi mu war a wootee gàmm gi. Mm-hmm. kenn du dem foofa. <laughs> loolu di kéemaan. <laughs> day day man la ñuy mujj indi problème ma ni ma waaye dama bëgg nga dumal dumal ma ko ba mu ba mu ba mu bàyyi li muy def sama gàmm boobu. noo lijjantee problème boobu nag. rek ay bagage la moo tax waaye <laughs> naa leen dañ bàyyi yooyu. ndeysaan. tubarkal la mu mel ni daal kon fi mu moom fi moom bu la déggee bu baax a baax mooy mboolem turu yàlla yi ak yi mu àndal yépp lu ci waay di def na nga ko amee jafe ci ndigal. waaw turu yàlla moom boo ko bëggee jëriñoo. Mhm. dafa am ay yoon. Mhm. bi ci njëkk mooy toog si kar ko. Mhm. tur yàlla yow da ngay woo si la hmm. yaa dégg hmm. bi ci topp mooy jug jëfe ko hmm. bu la ba pare ci ngay door a dem tërbiyewu ji tur wi du ne da ngay dem ci sëriñ bi xamoo dara mu lay defar da ngay xam dara ba pare door a dem ñu defar la makk da ngay xam fi mu féete jug dem fa ba àgg door a aj waaye doo toog fii di fi ajee tur yàlla da nga yor tur woo ko ba mu wuyi la nga dem nag ci ki nga xam ni moom moo la ci mën a defar dara mu defar la ci dara kon la bagage mi ngi mel ni téléphone da ngay dem ca marché ba jëndi téléphone ba am téléphone dem orange jëndi piis ba yor piis boole yëpp nag door a dem wuti connexion ci ñoom mobile yu bees yi wallaay maa la ko wax waaw noonu la tur yàlla demee waaw tur mën nga koo donn yor ko ñu mel ni téléphone te amul réseau amul bagage. Hmm. su ko defee nag loolu dama la ko leeral ci saayir waaye tur wi. Hmm. da nga ciy xam dara ba pare. Hmm. door a dem nag ñu deg activé la ko. ngir nga mën koo jëriñoo. activation bi moom mënta ñàkk moom. waaw activation bi moom il faut nga am ku xam dara mu defal la ko. macha allah waaye nag tur wi mën nga koo yor ba mu wuy si la. ngay mos ndànk-ndànk di def yëf. waaye boo bëggee tenir yii ñu yor comme bagage yi moom. daal laaj nag nga jóg ndax ay jamono. yaakaar naa juróom-ñaari at teguma sama tànk Sénégal mhm. te booba xam naa lu bari mhm. waaye nag li ma doon gëstu di ko seet mhm. loolu laa mënu woon amee ci réew mi li nga wax bi mooy turu yàlla yii itam man ngaa yor turu di ko sikkar am ci ndigal waaye dina ci am loo xam ne nag faaw nga génn dem ci ki yàlla dimbalee loolu mu defal la ci macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu wax dëgg yàlla dàkkante gi wuyu na ko borom alxuraan macha allah moo tax li ngay leeral tamit daanaka am na solo waaye tey jii suñ dama bëri suma bokk yi ne bitim réew yoo xam ne dañuy laaj yu bëri parce que ñoom fañ ne bu ñu liggéeyee ba wàcc dañuy faral di wéet di bëgg ay turu yàlla yu ñi maam ku ma ci doon waxtaan mu dima laaj yi moo taxoon tey sax ma indi débat bi tey jii nii mm-hmm. waaye bokk na ci ba tey sama xel du du jóg ci ñoom ndax tey jii fi mu toll nii bu fekkee jëmmi doomu aadama mi ngi waaj pour bëgg tukki est-ce que kooku dañ koy waajal te bu fekkee dañ koy waajal naka lañ ko war a waajalee. waaw tukki daal. Mhm. mag ñu njëkk ñi bu musaana am ku jëm bitim réew di tukki. Mhm. ak ku jëm ci xare di xare. kii mhm. tukki la ñuy gën a waajal. Hmm. tukki la ñuy gën a waajal ka ki jëm si xare ba. waaw xam nga la ñuy yor. moom kay a jaaxal ak i fetali yëf. mu ne boo musaana jëm bitim réew di tukki. am ku jóge ci dëkk bi jëmub xare mhm. yow miy tukki lañuy ñuy gën a waajal yaa ndax yaa gën nekk ci danger lu hmm? mhm. dégg ñu ni foo demee loxoy neen nu biseeg loxoy neen jógee fa loxoy neen waaw bari na ku lay woo fii di jàmbat li muy jàmbat lépp su waajoon du ko jàmbat oh tukki dañ koy waaj mhm. duma naa nag ab xare nga xam xare la ca biir waaw ak risque ca nekk yëpp mën la kuy tukki lañuy ñuy gën a waajal ku jëm ci xare mm-hmm. kon tukki xam nga ne lu ñuy waajal la wallaahi amul kenn kuy tukki koo xam ni mm-hmm. kenn la kuy dem mm-hmm. te amul kenn ku tukki koo xam ne daa jub di dem te jëm ci ndigalu yàlla atteb jihaat la ñuy atte tukki kuy jihaat ngir taxawal yoon yàlla yool ba ngay am mm-hmm. yaa kuy tukki fas yéene yoru njabootam yor fameem yéen a tolloo amul différence moo tax man la mag ñi kuy tukki lañuy ñuy gën a waajal kuy jihaati lu leer ngay wax man nag mudu mudu yi may jàkk jëflanteel ci wax téléphone ak di leen ñaanal ak yooyu ñi ci ëpp problème boobu lañ am mm-hmm. dañoo jug rek dem mm-hmm. te ku jug dem li ngay seet mën nga koo bañ a gis wala da ngay jóg lu ñëw. Mhm. baa nga yàgg fa doo fa jëlee dara. tukki dafa am ay secret ci alquran yoo xam ni booy tukki moom lañ la war a defal booleel la ci ay saraxam foo dem doo fa yàgg te la fay sàkk fa nga koy fekk. daa am yoon de. Hmm. yenu say bagage rek dem. Hmm. yenu ñëw loxoy neen. <laughs> waaye waaj dem. Hmm. ñëw ñëpp ñee la. la wax ñu nga gis ñi yónnee gars yi di mos. Mhm. am na fu ñu jaar door a dem de. tubarkal la <laughs> li ko tubarkal la mais jii bokk na ci sëñ bi ki tukki ba nopp ba pare fi mu ne waajaluñ ko defuñu ko dara mu dem ba bitim réew tey jii nekk ci ay xat-xat xat-xat est-ce que kooku mënees na koo xettalee fii ci biir réew mi wala. waaw kooku li ñuy waajalee kii dem lañu koy yónnee mu def ko foofu. dafa hmm. mu ànd ak i saraxam. waaw tukki moom daa ànd ak saraxam ok. tukki ak nguur hmm. képp koo xam ne tukki nga te xamoo say sarax dooy sarxe hmm. loo yor du toog ci yow wala doo taxawal lu sot wala alal joo am mu tasaaroo say mbokk lay ndax lekk ko moom nguur a yam képp koo xam ne dangaa yoru nguur hmm. te xamoo saraxi nguur gi ak réew mi dama la ñi nga jiite lay folli kéemaan la parce que dégg nga wax bi bu baax waaw kuy tukki da ngay waaj ku tukki te waajoo ba àgg mhm. amee jafe-jafe xam ni waajoo da ngay woote ñu waajal la nga mën a mucc mhm. waaw foofu loolu mooy tontu bi macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye kon suma mbokku Modou Modou yi dégg nañ ko sama classe gi fi nekk itam tey waa tukki rek fi mu toll ni ñoom it nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne daal ku jóg ak loxoy neen moom boo moytu dellu si ak loxoy neen rek moom moo ci ne te waxi olof la yàgg joo xam dañu judd fekk ko fi te dañuy dee bàyyi waat ko moom yenu njëgg ma di ko yóbbu di ko jaayi hmm. dafa am lu ko suñu borom booleel ni ko boo demee mooy tax njaay mi gaaw hmm. kaamil lay wax de hmm. man wax lu alxuraan damay la ku tukki te waajoo doo jukki jafe-jafe ku yor bërëbu liggéeyukaay te waajaloo bërëb ba bërëb ba du continuer ku yor mbaaloo te waajaloo leen di leen jiitu yi nga mhm. mhm. leer na bu baax a baax mais tey ji sarax fi ne lan la mën a dimbalee doomu aadama bi ndax mën na ko génne ci jafe-jafe wala ci xat-xat pan wala ci lan lan la sarax mën a dimbalee doomu aadama bi tey ci kaw suuf sarax yàlla ci boppam moo ko digal nit ñi mhm. sarax mooy loo xam ni amul kenn ku ko yor di ko joxalanteeg sa moroom mhm. te boroom borom jaarul ci diggante bi moo xam nga xam ko moo xam xamoo mhm. sarax mhm. mooy loo xam ni amul kenn ku ko yor di ko joxalanteeg sa moroom te suñ borom jaarul ci diggante bi yaa ngi dégg soxna Aysa wax nañ ni bu Moussa na yor dara di ko sarxe da koy parfum ba mu neex danaan ndax loxo bi ma koy jox lu mu gaaw gaaw loxo bi yàlla koy jiit sama loxo bi ngëneel li sarax wax ko xajul ci émission waaye daal dama na doomu aadama ñaar lay boole buy ñaan lu lum ñaan nu ñaan nga toll na ne sarax ba toll nu ñaan nga toll noonu la sarax bay toll noonu la sarax bay toll doomu aadama tamit nu wërsëg wa toll na ni sarax ba toll doo gis na mukk ci àdduna ponkal muy sarxe yor alal alal jawan ko ginnaaw dem du am du wërsëg wu tabe ci wërsëgam mhm. di ca génne sarax mhm. du ko ñàkk mukk loolu borom xam-xam yépp bind nañ ko mi ci téere yi mhm. kuy sarxe du ñàkk ku tabe du ñàkk booy ñaanu nag. Mhm. nu ñaan gi toll na ni sarax bi toll waaye taala loolu maa ko soññee gars yi. macha allah mhm. damay damay faral di dégg léeg-léeg yenn yenn yenn yenn gars yi sëriñ yi du faral di wax ni euh, boo demee saraxel li ngay saraxe maanaam comme bu dee dugub la wala ceeb saraxel nangami comme li tollook say at saraxel sarax bu tollook sa limu at lan lay jëriñ doomu aadama bi tam. waaw yooyu ay xeeti xam-xam la waaye jamono jii. Mhm. Euh, xam-xam bi weesu na foofu. ndax nattukaay yu njëkk yi bàyyi nañ ko léegi ñu ngi ci yeneen yu bees. Mhm, mhm. yaa ngi dégg wax. bu mhm. njëkk boo bëggee gis nit ki. da ngay yónnee ca moom woolu ko mu ñëw léegi boo ko bëggee gis da toog fii woo ko mu def caméra nga gis ko. wallaay ndeysaan. Hmm? moo bu njëkk ba xeewi na. wallaay. saraxi natti kilo natti at ak yooyu. <laughs> jamono weesu na ko ñun suñu ci xam suñu borom moom. dépassé nañ yooyu yor ñu ko gën a gaaw daal. <laughs> yu gën a gaaw waaw innovation bi daal. waaw ni dafa innové sax. dafa innové de. Mm-hmm. ñaan yàlla dafa innové. Mm-hmm. Sylvie dafa innové. ndeysaan adduna dafa innové. Mm-hmm. yàlla ci boppam dafa innové. yaa ngi dégg. nit ñu njëkk ña bokkuñu ak ñun de. déedéet. loolu bi ba nga fekkoon adduna ci ñoom. ak fi ñu ko indi du benn. fañ fekkoon lislaam ak fiñ ko indi du benn fañ fekkoon makka ak makka ak tey du benn tuuba ak démb ak tuuba ak tey du benn ndakaaru démb ak ndakaaru tey du benn lay la lépp mhm. yàlla amul luy de jëm ginnaaw kanam rek de sax ku bokkul ci ñi ci kanam nag mhm. da dul gis li ci kanam bari na sëriñ bu lay xamal lim lay xamal du xam-xamam xam-xam bu ay maamam yoroon lañ te jamono weesu na maamam moo tax mu dee. moom mu war a ñëw indi innovation innové wul. waaw daa yurul lu ko yàlla jox ba pare bëgg bokk ci gaa yàlla yi. du sotti. waaw kon <laughs> du sotti <laughs> jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu bokk na ci question bi bokkul woon ci waxtaan wi waaye maa ko ci bëgg laaj ndax dafa ñëw ci sama xel damay dégg ñuy faral di wax biddéew ak tabiha su ma juum mag yow mosoon nañ cee am ci am na ci suñu jotaay yu weesu yu yàgg yoo xam ne waxtaanoon nañ ci waaye dafa am lu ma ciy leer tuuti ma bëggoon xam tabixa ak biddéew ban différence lañ am ak nit ki est-ce que mënees na ko dimbali ñaanal ko yàlla sans pour autant nga xam biddéewam waaw nit moom biddéewam ci beneen domaine la jëm mhm. ñaan yàlla yi dinañ soxla loolu des fois duñ ko soxla mhm. mu mel ni jëmmi doomu aadama bi ngay ñaanal rek des fois nga soxla jëmm ji. des fois mën nga koo ñaanal sans sax tax ngeen gisee wala dara. Mhm. noonu la biddiw demee biddiw mbir la rek moo xam ni suñu boroom dafa am lu mu la wan rek waaye ñaankat bi dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. li muy soxla ci nit ki loolu moom ci jëmmi doomu aadama bi la nekk. loolu nag dafa mën a manipuler wu. Mhm. li may soxla ci yow. booy dund mi ci yow. boo dee mi ngi existé man mii ñaan laa de moom mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ne moom man man mm-hmm. ba ma lay ñaanal li ma soxla ci yow mm-hmm. booy dund mi ngi teew boo dee loolu mi ngi existé du luy dañ mukk abadan ilaa yawmi din li tax ñuy wax doomu aadama ñaankat bi lool la man loolu lay manipuler mooy ruu gi yooyu daal daa xóot waaye dama naan li may manipuler ci nit moom buy dund man nga xamoon naa koo ñaanal bu génnee àdduna mën naa koo ñaanal ndax loolu dund ak deedu mbiram hmm. jëmmi doomu aadama nag hmm. ak ñaan jëmul foofu ndax jëmmi doomu aadama dañ koy faj hmm. dañ ko fiy jële day dem te wax bi waaw ñaankat da am lu muy soxla loolu mbirum biir la loolu nag manipuler ko yombul de mën nga dugg ci réew ba génn doo gis ko ci xam lu bari waaw li ngay wax ni dafa sori loolu takkawee sax fi mu toll laaj naa ko waaye man mi sax fi ne maa ngi bëgg a réer ci biir fi mu toll yooyu naqaw ko du ma la ko sax leeral nag hmm. waaye daal booy ñaanal nit hmm. li ëpp soxla ci li ngay soxla yow hmm. li nga xam ne yàlla dimbali na la ci nit ñi yor nga lu leen mën a dimbali loola moom nekkul luy dund ci nit nekkul luy dee ci nit jamono bu ne mi ngi existé ci suñu borom loolu waaw baax na ñu continue jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral yu am solo bi xam naa benn question bi des rek mooy bokk na ci xam naa tey tam li nga xamante ni mooy comme suñu mbokk Modou Modou yi itam daf ci bari ñoo xam ne commerce ci la ñuy yëngu foofu tey jii euh, Bayram Ndiaye boo xam ne dana jëriñ doomu aadama bi te du ànd ak lor. Bayram Ndiaye daal ba ma la ci waxoon daaw laa lay waxaat ren yor naa ci boo xam ne nitu yàlla moo ma ko jox bu wér la. Mm-hmm. ba ma ko joxee ma jox ko li ma koy jox mu jox ma li may jox dani ma koo ko jox bu doon ay xeer la yor di ko jaay sa xeere day jar te seel naa ko ay niti ñu saalit lool mhm. masha Allah fa tabarakallah boobaat duma ko weesoo mhm. yor naa yeneen waaye bee da leen gën a gaaw ci wàllum njaay mhm. fii ci réew mi nag wax dëgg yàlla li fi am ci ay talibé commerçant kenn xamul nuñ toll. ndeysaan ñuy jaay oto. Mhm. ñu yor ay kinkaay yéeri. Mhm. ñi ay business man lañ. ñenn ñaa ngi Argentine am naa fi ay talibé yu moodu moodu yoo xam ne ñu ngi ci réew Europe yi. Mhm. ñenn ñaa ngi amerique ay commerçant li ma ci yor kenn xamul nuñ toll. waaye ñoom ñëpp même secret bi ma leen di liggéeyal su ma leen ko liggéeyalee moom lu ñu cangoon cangoon dañuy commencé di doxal. ndax secret boobu wax dëgg yàlla daal yombul nag mhm. yombul ndax waxit day leer waaye daal mhm. ku ma ko ci musal ba nga mus ko mbokk moom di nga ko booleeg man boobu wóolu naa ko bayrab jaay ko tax a jóg képp koo xamante ni si ni defal naa la ko mhm. sa xol dina sedd ci loolu baay taal macha allah jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci jotaay bu am solo bi waaye ci leeral yi itam macha allah xanaa lam mooy doon kàddu gu mujj gi rek ak soññe bi ngir askan wi itam ñi nga xam ne ngi lay bàyyi xel saa waaw kàddu gu mujj gi daal mooy ñuy sant yàlla bu baax eh, di julli ci yonent bi di ñaan yàlla mu barkeelal ñu nawet bi te mm-hmm. teggil ñu mbas mi ci réew mi mm-hmm. waaw léegi nag émission yi nga xam ne moom ñaa ngi koy commencé def mm-hmm. ñu bari ñu ngi ma ciy woo di la ci félicité di wax ni yu am njariñ la mhm. yàlla na yàlla def njariñ la ñu bokk ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbal alamin mhm. jërëjëf a Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu waaye tam ci mm, faram fàcce yi nga xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi koy indil askan wi ñu bëri bari itam ni nga ko waxee rek ñi ngi am mbégte bu baax a baax wax ne ñi mel ni yow dañu fee waroon a xaw a doon ab lim su ko defee kenn ku ne dina mën a dawaat delloowaat boppam ci yàlla delloowaat xelam tam ci suñu borom ndax leeral bi lañu la ñuy faral di soxla saa ne te dañ ko dafay xaw jafe ci ñoom kon di la ñaanal bu baax a baax suñu borom dool laa taxawu te gën a guddool fan wi gën a wéral cër yi ba mbooleem naal yeeg yéene yëpp rek sama borom defal la ci lu kawe sax njott ci daraja yonent yàlla baax a baax mbokku internet ne saa su ne ñi ngi nekk fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak mbéytam suñu borom mi dul jeexal dara man lépp sañ lépp tey borom lépp yal na yàlla jàppandal leen lépp ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci beneen jotaayu xam-xam jërë ngeen jëf wasalaam ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw